ñu ngi lay jaar wér jaar lu bokk. waaw gannaaw baatoon si bilaay mi ne seytaan rajim dañ naan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rek wax dëgg yàlla ku ne mën nga koo jaale sa mbopp daal waaw sunu papa la ñun ñëpp ak lu làmb yëpp sunu papa dëgg yàlla ñu ngi bokk ñëpp naqar bi di ko jaale waat Balla Gaye di ko jaale Sa di ko jaale ak lu làmb yëpp waaw père moom lu ñu koy ñaanal yàlla na ko sunu borom xaare àjjana yi kawee rek ci barki Seydina Mohamed ndax loolu la fi dese ñu ngi koy ñaanal sunu borom mi nga xam ne moo am yërmandeeg jéggal mu yërëm ko jéggal ko tàbbal ko àjjana yi kawe ci barki Seydina Ahmed sunu papa la woon papa yi mbër yëpp la woon képp ko xam ne am na ci combat ci géejawaay dina la taxaw jàppale la ba yàlla defal la li gën muy ndam ak muy safaan ak lu ci mënta xew rek dina la jox conseil dina la wax defeel nii ak nii ak nii ak nii ñu ngi koy ñaanal daal yàlla borom sunu sunu borom bi nga xamante ni moo am yërmandeeg jéggal sunu borom xaare ko àjjana yi kawee si barki Seydina Muhammad. Alioune si dafa làmb commencé naa waaw làmb mi ngi commencé wéet mais namm-namm sunu borom la sunu borom moo namm li li may wax rek tey bis la suba bis la bis bu nekk la ci war a xew xëy na jamono ji lii la namm ci axlu làmb dañ koy sant yàlla rek te xam ne noonu daal alaakulli àll noonu lay demee yaax a yéex a gaaw a fi nekk rek comme nii lay demee moom ñu leen di ñaanal ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi jóge ci axlu làmb suñu borom xaara leen àjjana yi kawee ci barke Seydina Mohamed ñoom ña ngi ko fekk ak ñi leen fa nar a ci barke Seydina Mohamed